tout droit pibër yi ci yoonu jeex na lépp loo soxla ci communication visuelle pibër yi dañ koy def ne manège flocage sérigraphie reprographie vidéographie ñoo lay defaral ay affiche ay flocage table photo yi dañ koy defar façon maillot t-shirt wala lacoste boo bëgg mën nañ la ko defaral floqué la ci lu la neex a ah, yemuñ foofu dañuy bind ci ay oto di bind ci ay taas panneau publicitaire dañ koy defar ma ne boo xoolee machine yi nga xam ne pibër yi liggéey bu professionnel la ñuy def waaw asalaamaaleykum yéen bokk internet yi si suivre ci lamine TV nuyu nañ leen ziar nañ leen bëgg nañ leen tout droit comme niñ leen ko waxee à chaque fois tey mercredi le premier février 2023 ñaat ak yéen beneen numéro journal di mbabat fas yéene leen jox li nga xamante ni moom mooy résultat simple maanaam lamb yi am ci semaine bi passé wala ci week-end bi passé fan la amee woon ak yan mbër ñoo jël drapeau yi jox leen aussi li nga xamante ni moom programme simple bi semaine bii di ñëw wala semaine yi di ñëw lamb yi fan la war amee kon tout droit ñu commencé ko ci résultat yi. samedi bi passé le 28 janvier fi nga xamante ne moom mooy Mbamloog amoon na làmb Mbamloog ki nga xamante ne moom mooy njool géant bu bari Bargny njool géant moom moo ko jël jël ko ci kaw ceeb bu Joal foofu nag dañ fay taxaw ndax dañu rafetle lu nga xamante ne ñoom ñooy. waa CRD bu Foundiougne jël ñu si nuyu suñu papa Mendy wala suñu tonton voilà lamb yi foofu léegi njom ñaal la ay lamb bëccëg lamb yi day teel a commencé ay 16 heures balaa timis lamb yu tas muy loo xamante ne nit ñi dañ koy rafetlu bu baax a baax ndax gars yàgg nañ ci jooy lool noonu suñu papa yeeg suñu yaay xale yu ndaw yi nga xam ne dañoo bëgg làmb mënatuñ woon seetaan si lamb côté yow parce que ay lamb yuy commencé ay minuit di jeex ay fajar. loolu moom doxul donc buñ delloo si waatee lamb bëccëg dañuy sant waa CRD bi sant aussi waa association Ndiob ñaal Thior production ak groupe suñu papa yi ñoom Maadou Mbingaan mënuñoo lim ñëpp mais gis nañ taxawaay bu ñu si am ba organisé woon foofu làmb fan yi loolu moo fa am ba làmb bi nga xamante ne moom la suñu yaay ji mbayang lum di organiser le 17 ak le 18 sax gis naa muy def benn vidéo di naan làmb bëccëg lay doon donc loolu lu rafet la yàlla na continuer voilà gis nañ ko ci île di salum yi loolu lañ bëgg mu demee partout ci biir sénégal bi voilà donc lamb bi fi amoon njom ñaal mbam loog sopu production moom moo ko tegoon samedi bi le 28 njool jean bu bari moom moo ko jël ci kaw ceeb bu soal ci samedi boobu fi nga xamante ne moom mooy combi mu ngi doon tëgg combi njool jean moo jógee mbam daal di ko jëlaat ci kaw sa yer ndaama donc njool jean ñaar drapeau la jël ci benn guddi Momo mo jël combi ci kaw sayar ndàmm poilise yi fofu ci combi monument bu njanda moom moko ko jël jël ko ci kaw boros el bandi bu mar fafako raw gadu yi sefa bu sop jaxaw jël ko ci kaw jamme bi dekk ndak seefa mom tamit mu ngi def début de saison bu garaaw wala première partie de saison bu baax a baax ndax def na ci 8 final boobu moo nekkoon 6 drapeau mu ñak ci ñaar voilà ci dimanche bi le 29 janvier fi nga xamante mom moy Dakar arène nationale Jax production moo fa woote woon Jax bi nga xamante ne day woote di woote di woote waat ñu koy sant di ko gërëm si loolu gis nañ am ci lutte simple ci lutte frappe yëpp. lamb bi mu organisé woon dimanche bi le 29 fële ca arène nationale Doudou Sané wala Xadafi bu Diofior comme ni ko supporteram yi di wooyee le roi Sané moom moo ko jël jël ko ci kaw Thiaka Faye wala Biram Kunkung wala Bisale poids léger yi foofu ca ar nationale Dakar njool bu Sana njool la moom moo ko jël njool bu zoal jël ko ci kaw sini bu barñe raw gadu yi ngor ñaax machine ne ngor ñaax bu mbel soog wala ngor ñaax bu farabug moom moo ko jël jël ko ci kaw samba diouf ci le 29 boobu ci dimanche yi nga xamante ne moom mooy koocoox amoon na làmb koocoox salmon wala monondos moom moo ko jël jël ko ci kaw biram bisin sen bam ne bii baan voilà fi nga xamante ne moom mooy baasaar aussi amoon na lamb ci ildi salim yi ki nga xamantene mom moy Ipso soval Ipso bu basul jël ko ci kaw gaja mande wala gaja bu munde poids léger yi fofu ca basar ki nga xamantene mom moy ma Reug Reug mbeur plus tiktoker Madi Reug Reug mom <laughs> mo jël poids léger yi ci basar jël ko ci kaw mam babu dekk Jirnda fi nga xamantene mom moy kam yak aussi amona lamb kam yak ki di fo dem bisan wala capitaine bu fisel moom moo ko jël jël ko ci kaw Abdou Abdou bi dëkk Wandiana loolu mooy liñ jotoon ci ay résultat wu làmb ci weekend bi passé ñu daal di def tout droit ci li nga xamante ne moom mooy programme bi. amateur l'ambier samedi le 4 février 2023 ña nga jëm de fatigue fatik ak Lamine TV borom tout droit borom sulum salam Lamine TV première chaîne YouTube ci walu lit simple Lamine TV mo leen di wo ci gala de lit traditionnel bu mak samedi le 4 février 2023 fi ci Fatik... à ne ko ah, Lamine TV ñaat nga tégal mbeur yi mu ne ma Mercedes bu wow kong ak 500000 francs lolu di nekk ci sous le haut patronage de monsieur charles Emile Abdou Sis, coordinateur de la coalition ëllëgu Sénégal Lolo di nek spécial trophée Boursine. ah mbokku amateur Lambi, animation lamb la grande diva Mbayang Loum ak momongom. Lamine TV nak bu wote lamb ak lu lamb yep wara a wuyu si ndax façon choono bu nek daj nako ci lamb Nena naa la guddil na lamb bëccëgal na lamb fépp fu lamb nek ci Sénégal bo gesto sen fa Lamine TV ak liggéeyam bu mucc ayib kon dal ak lu lamb muy mbeur di amateur di supporter bu Lamine TV wootee ñépp a war a ñëw tout droit le 4 février ak Lamine TV fii ci Fatick mu tegal mbër yi benn oto ak 500 000 francs nee naa la naar ku ko yónni gànnaar yaa ko ñibbiloo wante Lamine TV bu wootee lamb kenn du wax lu tax kon samedi le 4 février fii ci Fatick bu leen ko kenn nettali programme bi nak ni la tédé gis ngeen ko voilà lamb lamine tv ci samedi bi le 4 fan lay xewé ñu né Fatik ci arène Ngor Sid Ndour bu Njanjay Fatik samedi le 4 wa Lamine TV ñoo wote lamb ju reey ca Fatik tegal mbeuri auto auto bi mom ngeen gis non ci vidéo bi auto ak 500000 francs voilà animation bayanglum lum ak momo ngom kon tout droit Fatik ñu fay wo mbeuri yépp ak amateur yépp wa akhul lamb yépp képp ku mos a seetaan vidéo lamb à travers Lamyn TV rek ñu ngi lay woo samedi bi le 4 février fale ca fatik arenu Ngor si Ndour bu Njaanjaay mi ngi noonu lamb ñi ñu def ko sur le haut patronage de Charles emile Abdou sis Charles sis di coordonnateur coalition elegu Sénégal moom tamit dañ koy jaajëfal bu baax ndax gis nañ taxawaay bi am voilà dem nañ proposer ko li nga xam ne moom mooy parrainage bi mu nangul ñu kon Charles sis ñu ngi koy jaajëfal bu baax baax waaye avant le cadre bi fi nga xamante ne moom mooy Ndiédiène Ndiédiène Saloum am na làmb Ndiédiène Saloum ñu ngi fay teg juróomi nag ak fukki junni cinq ba plus cinquante mille ans Ndiédiène Saloum ci vendredi bi le 3 février. ci vendredi boobu le 3 février vendredi le 3 février ci la yor di commencé waa Jalki Jëg bu Daaru Nimsaat yor seen lamb ji ren di 19e édition avec le président Babacar mbay Labou ñoo woote. Diofior du 3 au 6 février 2023 vendredi lay commencé jeex le ni ñu tegal mbër 25 bœuf ak 200 000 francs ñaar fukki nak ak juróom ak ñaar fukki junior. Ah, tout droit Diofior lambu daru bobu. voilà ay jaloor yu yu ne am nañ fa kon tout droit ñom ñoy tëggaat ren waye nak fi nga xam ne moom simal aussi day tëgg le 3 ba le 6 wa arrêt bu simal vendredi ba lundi simal tegal mbër yi 2 millions foofu aussi dama fay taxawaat defoon naa ci vidéo mais dama koy waxaat joof yoor ak simal jegeyantoo nañ jegeyante ba nga xamante ne voilà sama gis-gis ak lu bëri nuñ ko gisee ñaari làmb xejul foofu rawatina ñaari làmb yu mag kii teg vingt cinq nag ak mille kii teg 2 millions diggante joof yoor ak simal dëgg la joof yoor commune boppam la CLG boppam la yor simal ci commune fi mu laa la bokk seen CLG lañ am waaye gars war nañ mun di waxtaan. di xool ndax lii kim gën a ñàkk a arrangé mooy ñuy organiser Diofior arrondissement Fimela la bokk voilà bien vrai ñaari commune la commune Fimela ak commune Diofior mais même amateurs yi ngeen am ñi seetaan lambu Diofior ñooy seetaan lambu Fimela ñooy seetaan si Simal ak zone boobu noonu yëpp kon bu ñu fa tëggee ñaari lamb amateurs yi ñii dañuy aw ni ñee aw ne mbër yi moom waxi noppi waa poids lourds yi gis nañ léegi li fi xew lamb yi du am ay mbër boo buggee xaajaat mbër yi si diggante boobu noonu day xaw a yéeme bii jàll na mais beneen yoon ñu waxtaan xoolaat ni ñu koy defee daal ba trouver terrain d'entente mu am décalage ci làmb yi sinon lii moom voilà arrangé wul kenn. waaye le 4 ak le cinq voilà samedi le 4 ak dimanche le 5 fi nga xamante ni moom mooy Joal Fadiouth am na làmb suñu pàppam Manga 2 voilà la structure Manga production ñoo woote ñëwaat joofi ñëwaat fële Joal Fadiouth seen dëkk dëkk Manga 2 Joal Fadiouth tegal mbëri ñaar fukki nak 20 bëf fofu ca zo alpha ju lamb ju rëy ah. suñu papa ma nga de nak bu wote tamit ñepp wara ñew def tew ndax lim def ci lamb ba tay mu ngi ci lamb ji di taxaw mbëri di taxaw le simple bu wote kon na ñepp def tout droit zo al le 4 ak le 5 lamb ji ñaari fan la mais ñetti drapeau la day am raw gadu voilà am poids léger am poids lourd alpha ju le 4 ak le 5 samedi ak dimanche waye nak Jax nee naa leen moom day woote di woote di woote waat moo woote waat dimanche le 5 fële ci arène nationale encore lu mu tegal mbëri yi ñu ne 6 millions 6 millions la Jax tegal mbër yi ñetti catégorie lay doon ñetti drapeau raw gàddu poids léger poids lourd arène nationale 6 millions ci dimanche bi le 5 février 2023 tout droit waaye nag Lamp Lamine TV bu leen ko fàtte mu ngi noonu jaajëfal nañ leen bu baax a baax